jërëjëf Faty yi ñu am kon dalal fi Souleymane tey ci ajuma ji saa su nekk nag ñuy waxtaane wàllu koom-koom tey ji Souleymane dañoo bëgg ñëw ci décret bi nga xamante ni njiitu réew mi finalement si na ko ngir li naan rationalisation euh, train de vie de l'État de manière générale euh, jaare ko nag ci rawatina oto yi nga xamante ni yenn ci ay mm. fonctionnaire dañ ko doon jëfandikoo ñu jàpp ni dafa cher te li mu État bu Sénégal bari na trop ñu koy yaxandal ba finalement ñu ne ay indemnité la pertinence bi nan la Euh, li si njëkk sax déjà ñu xool li président décidé. ci ci décret bi li ñu décidé pour leeral ko. moom mooy état rocc na loxoom. ba mu set wecc ci lépp luy jënd oto toppatoo oto jënd carburant. essence wala gasoil. Euh, assurance entretien assurance. ak amortissement parce que amortissement dafa am njëg boo jëndee oto mu war a dund juróomi at. Euh, juróomi at yi pour nga mën a remplacer oto bi il faut nga def ay amortissement même bu dee ay charge calculée la rek du xaalis bu bu teew mais da nga koy boole ci sa ay calcul di ko boole ci sa ay dépenses même bu dee du xaalis buy buy génn loolu yëpp buñ ko xaymaa euh, ci juróom-ñetti at diggante 2012 ak 2020 242 milliards boo ko boo ko boo defee moyenne bi. Mhm. ñaar fukk ak juróom ñaari milliards at bu nekk. Mhm. mooy dugg ci diggante jënd oto. Mhm. jënd carburant. toppatoo oto bi ay dépannage ak yi ay pièces de rechange. ak assurance ak amortissement. loolu dafa jéggi dayoo loolu ay projet la pour jeunesse bi nga xam ne ñu ngi naan ay problème tabax na ay na ay école créé na ay euh, emploi créé na ay projet ak yi ni euh, donc loolu lay firi pertinence bi. moom mooy de euh, delà li ñuy li ñuy li ñuy économiser mm-hmm. Mm-hmm. parce que économie la rek mm-hmm. day dégager ay marge budgétaire du xaalis bu teew tamit boo jëndul loo xam ne da nga ko waroon jënd du ni euh, xaalis boo tegoon la nii rek après da nga koy jëlaat ñu on est dans le du budget mais loolu dinañ ci ñëwaat euh, au-delà li ñuy économiser mooy dañu régler problème bu mag a mag ci gestion mhm. du patrimoine de l'État en en général ñu taxaw ci oto yi oto boo demee ci privé lu si gën a bëri duñ la jox oto nii rek dañ lay defar car car plan mhm. nga fay benn partie bi leneen ñu matalil la ko dans le cadre euh, favori yi la société bi di defal à cause de ton statut wala pour leneen mhm. nga dem ci état bi ñu jox la oto boo xam ne du sa amoo ci benn intérêt am na assureur yi lu ñuy tuddee aléa moral aléa moral moom mooy su ma la joxee loo xam ne amoo ci benn loo ci moom ni nga koy téyee ak bu ñu la joxee loo xam ne dañ ci am wàll mm-hmm. du doon benn moo tax assureur yi dañ na naan euh, dañ lay jox assurance mm-hmm. waaye dangay indi tuuti xaalis def ci mm-hmm. booy jëndi garab da ngay indi 20 pour cent ñu yokk 80 pour cent. sa 20 pour cent yooyu day tere ngay def loo xam ne jaaduwul ci loolu waaye ñu jox la oto boo xam ne yow moomoo ko. du sa tur jëndoo essence réparé woo. ni xoolal ni ñu traité les les voitures de l' administration. Ah mm-hmm. buñ kuñ ko ci jox trois mois après mu doon xottu. dëgg la de parce que moomoo. dëgg la de euh, amoo ci dara. bu dee sa bu dee sa oto de pièce ngay changé Souleymane da nga de. donc benn ci pertinence bu ngi noonu di nga yàqanal. Euh, loo moom. buñ la joxee indemnité. boo ko moomee. Mhm. di nga ko toppatoo. Mhm. di nga ko dépanner. Mhm. di nga ko boo boo ñëwee ci ah, fu ñu tojee oto di nga ko moytu. boo boo xoolee ni fii su ma fi gaaree xëj na nit xoos ma. doo fa gaaree. te bu dee auto administration nga gaaree ko nu mu la neexee. mais pertinence bi c'est dans un cadre plus général de rationalisation. parce que oto yi la ñu wax tey. waaye téléphone bi junj nga ko sànq soxna Faty. xam nga nag téléphone 22 milliards tamit. Ah. à peu près deux milliards par mois ci téléphone. tel deux milliards. xam nga loolu doy na waar. loolu ban téléphone la. waaye ñëpp xam nañ ni amoon na ay jamono ku bëggoon woote international doo mm-hmm. wootee sa kër. bureau yi ngay dem doo wootee sa téléphone portable. Mm-hmm. da ngay dem ci bureau yi. Mm-hmm. ñu jox la téléphone nga wax ba jaaxan. da ngay wax ba doo amati loo wax sax. ngay xool looy wax di wax ay bopp ak yi ni mel ne. est ce comportement ñenn ñi taxul mesure ñu yegg ci mesure yi. comportement yàgg na fi li ñuy wax lii. Euh, avant 2012 sax amoon na fi. Mhm. ñëpp xam nañ ni te boobu sax la gënoon tar parce que boobu téléphone portable amul woon. amul woon OTT yi amul woon. amul woon amul woon Viber amul woon euh, Skype amul woon yooyu yëpp. Euh, boo doon wootee boo bëggee wootee international mhm. da ngay dem ci téléphone fixe nga woote di déglu impulsion yi impulsion bu nekk deux cent francs wala cinq cent francs dem na mhm. bu boobaa di nga xam li ngay wax loo xam ne nag dañ la koy jox nga jaaxaan nii rek di wax ba et cetera loolu ñun ñoo koy fay donc loolu benn la beneen bi moom moo nekkoon les maisons conventionnées. Mm-hmm. maison conventionnée état jël di loué rek. Mm-hmm. te ni ñu loué nag xol. ñoom ñooy keroog bi fi Abdou Mbow ñëwee. Mm-hmm. wax nañu ni am na lu ci nekk loo xam ne sax yéen xamu leen ko bu ngeen ko xamoon dëkk bi tas. diggante ki nga xam ne terrain bi mu am bi daf ko njuuj njaaj ba am ko. wala lijjanti ko ba am ko. xaalisam demu ci wala bu ci demee bëriwu ci. ñu jox ko logement de ñu déedéet. non non mooy loué état bi yow bi ni nga ko amee mm-hmm. jaaduwul. Mm-hmm. financement bi ni nga ko amee jaaduwul. Mm-hmm. dangay dem ci structure de l'état yi ñu lebal la xaalis. nga tabax si immeuble mu jëm ba ca kaw. nga lebal ko nga loué ko état bi. état bi di tegle ay arriéré ay jàmbur. xoolal keroog bi ñu waxee affaire pandémie bi benn ci ligne. mille milliards yi. mooy rembourser les obligations mm-hmm. impayées mm-hmm. obligation yooyu lu si gën a bëri lan la woon yoreel ay BTP mm-hmm. yoreel ay ñii ak ñële bu ñu demee bay fay lan lañ def rentiers yi lañ dem defal leen priorité waxuma ci pandémie bi mais boo dégloo ki nga xam ne moom moo yore agence de gestion du patrimoine bâti de l'État yàgg yàggul noonu yenn ay weer yu ñu waase yu ñu weesu rek def na fi benn genre sortie naan woy def ñu ay inscription ay instruction pour ñu fay Euh, les arriérés et ñooñu ay rentier lañ. balaa ngay fay ki nga xam ne nu mu amee terrain am. mu amee financement am bay dem di louer état ñu koy def ay priorité payment alors que am na ñoo xam ne ñu ngi employé ay nit. Euh, yorel leen ay milliards kenn fayu leen ko loolu tamit jaadu donc boo defee somme boobu yëpp les maisons conventionnées. le téléphone les véhicules il y un gros problème donc rationalisation bi ça vient à son heure et pertinence kenn du ko laam-laamee lii la ñu waroon def depuis bu yàgg mhm. def nañ ko tey xayrun waaye il faut tamit ñu évaluer bu baax a baax lan moo indi woon loolu yëpp ñu corriger ko marge budgétaire yu ñuy dégagé yi aussi ñu xool nañu koy utiliser. parce que ñu ngi naan c'est trop facile ah dañu économiser dañ koy dugal. Ah marge budgétaire la. am nañ déficit boo xam ne c'est à pour cent de notre euh, PIB. c'est 700 et quelques milliards yoo xam ne. dañoo dem uti ko ci sur les marchés. Mm-hmm. donc bu ñu amee ay marge budgétaire amaana am na benn parti boo xam ne aussi day dem ci ay mais li ñu gis mooy même sa indemnité yooyu ni va fi mu varié entre sept cent mille francs la wax ba deux cent cinquante mille francs selon xëy na ndomba tànk nga xamante ne moom nga moom nga ci fonctionnaire bi est-ce loolu aussi takkuwut même si dañuy yaxandal euh, takku na mais après da ngay xool coût bénéfice bi mhm. bu nekkee nii boo fay parce que def nañ def nañ kii xayma nañ ko c'est quand même euh, quatre virgule quatre par an au lieu de vingt sept milliards yoo xam ne moom lañu doon dépensé par an en moyenne hmm. xam nga loolu économie bu mag a mag a ngi fi dix neuf milliards yoo xam ne ñu ngi koy ah. économiser donc boo ko xoolee ci anam boobu déjà c'est ce qu'il fallait faire deuxième bi mooy lan moom mooy da ngay transférer responsabilité bi ah da koy jox euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yelloo. bu boobaa ñoom ñooy xool parce que nag ku sa salaire yokku sept cent cinquante mille. boo demee banque nga ne dama bëgg jënd oto lebal leen ma ma remboursé leen. te état moom moo may employé. banque bi lebal la nga dem jëndi oto. Mm-hmm. sept cent cinquante mille yu yokk ci sa sa sa sa salaire. day yokk sa capacité de remboursement. bu boobaa ngay fay euh, et cetera maintenant attention. Mm-hmm. sur la durée koo xam ne dese na ko vingt ans de carrière. Mm-hmm. boo calculer nii bon évidemment am na yeneen aspect un peu plus complexe actualisation parce que 750 euh, 000 tey euh, moo ëpp 750 000 dans 10 ans. Mm. ne serait-ce que parce que inflation bi day yokku et cetera mais j'imagine que même 750 000 yooyu dans les années à venir dafa nar a yokku. Mm. mais bu weesoo benn jamono bi. parce que 750 000 quand même multiplié par 10 c'est 7 millions 500. Ah boo ci tegee yeneen 1 million 500. day day nekk 8 millions di jege 9 millions. 9 millions par an nga multiplier ko par 10 c'est 90 millions ëpp na njëgu oto téeméeri junni yoon. Mm-hmm. bu boobaa ñu xool aussi mesure bi. Mm-hmm. nan lañ koy ajuster mm-hmm. au fur et à mais acquis la. bu demee ba nekk acquis kenn tu kenn mënut ciy wax dara mais nu mu mënti demee 90 euh, millions yooyu. ce sera beaucoup moins. que boo jëloon vingt sept milliards yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu doon dépensé divisé ko par bénéficiaires yi mm-hmm. li nga xam ne noonu la doon tollu bu ñu ko defee dix ans même boo ko répartir mm-hmm. donc franchement mm-hmm. en tout et pour tout c'est une bonne mesure mais il des aspects cachés téléphone boo économiser vingt vingt et un milliards wala dix huit milliards dix huit milliards par an surtout mu nekkoon ay appels internationaux dix huit milliards doon dem Sonatel la doon dem. Mm-hmm. ak Free. Mm-hmm. ak Expresso. rawatina Sonatel. opérateur waaw ouais, opérateur yi c'est un manque à gagner. Absolument. Mm-hmm. et l'État étant actionnaire de Sonatel notamment ay mm -hmm. dividendes am heureusement Sonatel bon am na baisse relative relative de son chiffre d'affaires mm -hmm. mais euh, euh, boo jëlee boo jëlee seen résultat opérationnel li ñuy tuddee EBITDA boobu boobu dafa yokku mais li ko waral moom mooy dañoo amee relais de croissance c'est-à-dire te loolu yëpp c'est lié parce que bu nit ñi mëntul woote téléphone notamment à l'international ci téléphone bi dañu dem ci OTT yi te loolu dafa laaj connexion dafa laaj connexion ay data yu yu yu yu yu rëy te loolu euh, bande passante et cetera voilà pourquoi à la Sonatel mhm. alors euh, relation de cause à effet bi il faut l'établir scientifiquement mais on peut poser l'hypothèse mhm. que boo wàññee téléphone bi da wàññi chiffre d'affaires euh, Sonatel mhm. boo wàññee chiffre d'affaires Sonatel bu ñu deful li war cest dire bu ñu amul relais de croissance ba pare def les mesures de rationalisation ñoom seen bopp seen charge parce que mhm. loolu la ñu def aussi pour mën a dégager une marge plus importante si seen résultat opérationnel bu ñu ko deful bu boobaa day feeñ ci résultat bi bu feeñee ci résultat bi feeñ ci dividende état bi donc attention on économise 18 milliards mais dix huit milliards cinq cent yi day am njeexital feneen. heureusement Sonatel def na liggéey bu mu war a def pour que état bi bañ a perte si dividende mhm. ci ay taxam ak yi mel mais tout est lié. Mhm. oto yi la même chose bu ñu jëndatul oto yu bees ça veut dire que concessionnaires yi aussi c'est un manque à gagner. Mm, ah non les vingt deux milliards qu'on économise ou les vingt cinq milliards qu'on économise c'est autant d'argent yoo xam ne demande état bi daf ko wàññeeku par rapport à un secteur particulier mhm. il se trouve simplement que si secteur boobu aussi fi ñu doon jëndee oto amoon na si ay lëndëm lëndëm yu si nekkoon ci loolu laa bëggoon a taxaw sax parce que fii ngay gis des fois fonctionnaire bu fi daw boo xamante ni extraordinaire bi sax mayewu extraordinaire alors président France sax du dawal xeetu ah non non non loolu euh, d'ailleurs boo gisee chiffre yi egg foofu boo xam ne tu vas te ah, dire est-ce que lui c'est un fonctionnaire à quatre-vingts millions de francs c'est un scandale léegi DG bu nekk yaakaar na ni dafa yore dafa war a yore benn V8 am na si ñu si gën a muus ñoo xam ne sax dañ ciy dugal yeneen service ak yeneen kii yoo xam ne kenn sañu ko wax fii. Mhm. alors il faut attention aussi il faut que état bi wax ñu stock boobu. Mhm. nan la mhm. nan lañ koy répartir aussi. Ah parce que attention 2012 la Macky Sall ñëw au pouvoir. bi Macky Sall ñëwee. Euh, si vous vous rappelez bien. jënd nañ voiture quand même présidentielle bu bees. sécurité état bi jënd nañ ay oto yu bees. il faut ñu wax ñu. ci stock boobu est-ce que les voitures de sécurité si la bokk. Mm-hmm. Euh, sapeur pompier yi. Euh, xam nga mm-hmm. jëndal nañ leen fi ay oto yu bëree bëri. bëri police amoon na fi appel d'offre bu ñu fi defoon ba indi fi ay polémique donc il faut faire attention il faut ñu xool aussi nan la ñu répartir les répartir les responsabilités yi boo joxee une masse comme ça alors que xëj na am na benn auto présidentielle bu jaar plus d'un milliard plus des voitures de sécurité les gardes du corps les voitures blindées et cetera et cetera mm-hmm. c'est quand même. amalgamer des mmh. choses qui sont relativement différentes donc man dans le fond dans le principe c'est une décision salutaire mmh. parce que ça dégage des marges ça permet d'économiser mais bu ñu bëggee xam vraiment répartir responsabilité yi hmm. et éventuellement poursuivre parce que moi je, pense qu'il faut aller logique pour logique il faut aller au fond hmm. parce que Cour des comptes les les les organes de contrôle quand même hmm. euh, wane nañu mettre nañu en évidence mi responsable affaires yooyu comment on fait pour faire rembourser comment on fait pour prendre d'autres mesures il reste maintenant enfin la question des voitures yi nga xam ne jënd nañ ko ba pare am na yu bëri yoo xam ne ñu parking yi tëdd parce que lii moo ci manqué lii moo ci manqué comment on peut dégager de l'argent avec voilà ce parking là dormant et cetera maintenant faut pas jeter euh, le, bébé avec la l'eau du parce que euh, xaw ma en tout cas dégg naa ay ministre mm-hmm. yoo xam ne am na si kenn kenn si ñoom koo xam ne moom moo wax ma dégg ni otom bu mu yoree depuis 2014 je pense. Mm-hmm. la yore ba léegi. pourtant il est ministre euh, nekk ci gouvernement bi yor fi bu tànk bu et cetera mais Mercedes bu ñu ko joxoon. Mm-hmm. nee na moom la yore ba léegi. je n'ai aucune raison de ne pas le croire. donc am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla xëj na ñu ngi doon jéem seen kéemtalaay kattan. waaye rangale quatre voiture ah ci sa buntu kër. <laughs> bii pour euh, jànq bi la bii pour say doom bu ñuy jàngi. <laughs> bii booy liggéey bii pour madame. <laughs> Euh, wax dëgg yàlla. Euh, il était temps qu'on arrête tout ça et surtout pour le bien des jeunes yi nga xam ne soxla nañ ñu jël mm-hmm. tuuti si koppar euh, ah man man ci loolu sax man man période bi affaire bi intervenir aussi lu jara taxaw la Souleymane parce que président quand même ñi ngi ko fal depuis 2012 ñu naan mandat bi ñetti ñetti at des mu koy doog jël alors que lii yàgg nañ ko annoncé est que c'est pas trop tard non il n'est jamais trop tard pour ce genre de mesure mm-hmm. euh, yàgg nañ ñu ko annoncé c'est en termes de d'engagement de campagne yàgg nañ ñu ko annoncé hmm. mais mesure bi en tant que telle si vous vous rappelez bien c'est il y a deux ans. il y a deux ans 2019. Euh, hmm. euh, notamment euh, réunion rencontre bu mag bi amoon sur le programme d'appui à la modernisation de l'administration. Hmm. la ñu commencé woon di wax vraiment concrètement. la lañ bëgg def notamment en matière de téléphone. d'autant plus qu'il y avait des investissements lourds qui étaient en cours. boo jëlee ADIE euh, intranet gouvernemental bi tous les services yi nga xam ne fibre optique bi mën nga si jàllale des voix mën nga si jàllale des données et cetera Illimix yi rek nga fi exactement mooy le dix mille nga woote ba et cetera euh, mais les gens n'utilisaient pas donc il n'est pas trop tard il n'était que temps ñu appliquer ces mesures la mais il faut pas se faire d'illusion mesures dañoo amee ay externalités et externalités yooyu il faut ñu régler ko aussi vous allez voir très bientôt mm-hmm. euh, les concessionnaires jaaykatu oto yi ils vont commencer à râler mm-hmm. parce que seen chiffre d'affaires dina baissé ay emploi mm-hmm. donc gérer un état gérer ay équilibre la faut pas non plus faire des gesticulations politiciennes pour juste euh, yaakaar ni nit ñi dina leen calmer et cetera loo fàtt fii daf yëngal bu ëllëgee dina am feneen fu suleeku bu commencé senn te bu boobaa dinga daw aussi dem fatt foofu donc il faut qu'on voit aussi comment ensemble essayer de voilà réfléchir à tout sax moom mooy tout le tout le sens des concertations yu ñu wax ñëpp toogandoo di waxtaanee yi ni mel mhm. d'accord le train de vie de l'État est beaucoup trop élevé mais alors faites attention mhm. parce que ñu ngi wàññi charge yooyu mais am na yeneen charge yoo xam ne dafa yokku mais les charges de personnel. Mm-hmm. daaw c'était 817 milliards. masse salariale lañ doon fay masse salariale mm-hmm. Sénégal. Mm-hmm. ren budget 2021 bi c'est 904 il y a 83 milliards qui se sont ajoutés à la masse salariale. Wow. du pays. yëpp a yokku lenn rek moo ci charge état bi ren. lenn rek moo yokkuwul moom mooy service à la dette moom mooy intéret ak commission yi ñuy fay ci li ñu lebu loolu rek moo wàññeeku relativement relativement. mais Souleymane je ne ci travailleurs la dugg c'est-à-dire ay recrutement personnel la ay agent yoo xam ne dañuy servir population bi amul amul solo mën nañ ko mën nañ ko mën nañ sant yàlla mais problème Sénégal mooy que maanaam y de belles initiatives qui sont énoncées et que le président parfois vraiment euh, euh, dont le président parle mais dans l'opérationnalisation de ces mesures-là il y a ces rentiers et ces ñëw dugg nangu affaire bi doo gis xaalis doo gis dara mm. cest à mun nañ ne mille milliards lañ dégagé au au finish rentier yooyu noonu wala cartel yooyu noonu et parfois am ñu ministre du ñu DG mm. mais dañu am ay subtilité am ay am yoo xam ci ne non doo gis xaalis doo gis dara parce que rentier yi ak cartel yi mm. kii nañ xaalis un problème je conclue sur euh, point parce que euh, am na leneen loo xam ne état bi mu ngi ko doon def année yi passé mu ngi commencé am njeexital mhm. euh, bu baax moom mooy euh, c'est sous la pression d'ailleurs euh, des de des partenaires ak yi ni mel dans le cadre bon ICPE bi par exemple les transferts yi ñu doon def ci compte de dépôt yi parce que mhm. la moo indi nit ñi di jënd ay oto yu dul jeex di ko jënd di jënd en dehors des procédures de l'État mm-hmm. parce que procédure de l'État bu ñu ko toppee mënoo mm-hmm. jënd benn euh, voiture américaine de luxe ak yi mm-hmm. kenn xamul li indi nit ñi di ko def moom mooy dañ leen doon transférer ay budget sur des comptes de dépôt mm-hmm. alors que amuñu personnalité juridique mu ngi mel ni nga jël état bi jël xaalis gafaka gafaka état bi mm-hmm. jël ci xaalis transférer ko benn direction wala transférer ko benn administration boo xam ne mm-hmm. en tant que telle elle n'existe pas parce que dafa bokk ci état bi waxuma société nationale yi de waxuma la les les sociétés parapubliques ci biir administration bi am na ñoo xam ne dañ doon am ay transfert sur des comptes de dépôt cest de fait de gestion am compte bancaire di fi jël xaalis artistes di def seen lu leen neex. loolu wàññi nañ ko wax dëgg yàlla ba presque amatul loolu nag boo ko wàññee nga dugal ñëpp ci procédure état bu boobaa yenn yi ñu doon def yi. non wax dëgg yàlla da nga doon romb yenn yenn ah ay agence mhm. nga gis mhm. fa yenn oto yi tu te mhm. demandes comment ça se fait que cette voiture là ñu mën ko parce que am na yoo xam ne dañ ko doon def administration xam nga tey bu ñu demee ba administration nit ñi ils sont obligés de banaliser les plaques d'immatriculation ça veut que am na même parce que dañ fi doon tere ñu doon wax ne jamonoy Senghor sa kenn bu dul liggéey ngay ngay ngay génn région par région on a wala ngay dawal oto bi fi secrétaire général présidence na tere woon na fi jamonoy Wade mais ba léegi gis nañ weekend wala yenn jour kuy ah, utiliser véhicule administration pour des raisons privées aléa moral moom dafay deñ parce que euh, boo xamee ne léegi yaa moom oto bi mm-hmm. euh, doo ko jël di ko dugal ci foo ay tëli yoo xam ne mm-hmm. bu ñëwaatee rotule bi dammaak ak yi kenn xamul yaa ko moom di ko toppatoo noo xam ne mm-hmm. euh, gestion en bon père de famille parce que loolu la laaj administration gestion en bon père de famille mm-hmm. mais loo moomul mm-hmm. amoo ci dara amoo ci wàll amoo ci cër mm-hmm. doo ko téyee Euh, ni nga xam ne nan nga waroon téye li nga xam ne yaa ko moom wala nga am ci wàll boo moomal sa bopp. merci beaucoup Souleymane li nga indi si jàngat bi amati na solo. Euh, ñu lay jaajëfal tu restes avec nous sunu invité dalal na boppam parce que ci kër gi la bokk sunu confrère la. Ibrahima li sa fay li sa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Fati. Mhm. di nuyu euh, ñoom Chérif mhm. Souleymane moo di ñoom ñëpp vraiment. Mhm. di nuyu aussi ñi seetaan. di am mbégte di la dalal et puis invité bi sax yegg si nañ ci léegi léegi lay